am à Mbourkat euh, département bu euh, Thiès d'abord naka la ñu mën a euh, qualifier act boobu nga xam ne def na ko gannaaw décision bi nga xam ne jël na ko très récemment muy dakkal lépp lu jëm ci construction yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci yenn zones yi. waaw damay d'abord di ndokkeel tey waa Touba njabatub sëñ Abdou Lahad ci màggalub sëñ Abdou Lahad bu tey jiital ci sëñ Sidi Abdou Lahad Euh, sëñ ñoom sëñ daam atta ak jaboot gi yëpp li tax ma tàmbalee foofu xamul lu tax nan lañ daan wooyee sëñ Abdou Lahad le bâtisseur. Euh, dama ñëw fekk suuf bu amul lu bari mu def ci lu bari suuf soosu ñu ko joxoon amal na ko njëriñ amal tey njëriñ ñi dëkk tuubaa ak li ko wër li tax ma jël euh, corrélation wala ma jël exemple ci moom. mooy suuf nga yëkkati cent hectare deux cent hectares jox ko euh, Pape Makoura Mbaye munu cee defar case mu jël ko jël dix hectares jox Cheikh Diop jël cinq hectares may la jël yeneen hectares jox den keneen ak keneen mais kooku man pour man euh, c'est c'est criminel xam luy criminel mooy koo xamee ni da nga ñëw ñu yëkkati. suuf su ne gàññ jox la walla nga jël suuf su ne gàññ téyel ko sa bopp di ciy seddalee nu mu la neexee parce que nguur nga bokk yëkkati ay hectares yi hectares ne ni waa lii xam nga lan lay nuróol waa bii man la tippoo naa bi gis na temps xale oto bu romb nga ne maa bi bii tippoo naa bii maa jël bii loolu moo am ci suuf si ci réewum senegal ci ay nit ñu nekkoon ci nguur ku ci nekk naan ci fi ma ne comme am na assiette foncière boo xamee ni dañ ma ko jagleel wala man maa ko war a yore naa ci def lu ma neex naa ci cëru ba pare cër ci ñama ma xam euh, mbirum corruption dugg tey am na président dem bi fi mu dem ñamu àndal na leen saytu am na ci kenn wala ñaar wala ñett wala ñi ko wër ñoo xamee ne buñ doon xool suuf sañu yore ak nañ ko jëlee euh, président da naan dem leen ngeen toog c'est quelqu'un qui connaît le le le ndax impôt et domaine la nekkoon xam na la ñuy séddalee suuf nañ koy joxe ak na ci cëru bu demee def benn visite inopinée ci bërëb bu mel noonu parce que xam na coow li fa nekkoon xam la fa ne xam lañ fay nëbb mais ñamu àndal je le na leen saytu ñamu àndal su ma nee ñamu mu àndul du du staffam de maanaam euh, ministre mais ña ñamu mu àndal kan la kan la la fa fekk gouverneur gouverneur mu ngi fa préfet mu ngi fa maire mu ngi fa. gouverneur u Thiès. cadastre ñu ngi am na coow e lu ñuy coow. di ko moom. Mm-hmm. gouverneur u Thiès. Mm-hmm. dëgg laam du dëgg nañ ko saytu. maire u nee ñu yëkkati nañu Vox Populi wax na ko nanga nangami euh, parcelle jox ko kan la ko sédd dañ ko saytu muy Thiès ville muy est ak yeneen ku ci nekk ci réewum senegal dañoo jëloon suuf mu mel ni ku amul suuf wala ku sàccul suuf pour yow tekki woo. waaw daa bari Kër Moussa rek Kër Moussa ñetti hectares lañ leen. xam nga non non 15 parcelles 120 parcelles yi ñu jox Kër Moussa rek. 15 parcelles mais kan lañ jox parcelles yi. man li tax ma ma ne. président il sait ndax fa mu dàkk fa mu bokk mais bu mu bu bu mu gratter surface c'est-à-dire bu mu yam ci li feeñ la partie visible de l'iceberg comme on dit nañu dem en profondeur. kuñ ci war a téye ñu téye ko ci mois je suis pour la reddition des comptes ci côté boobu parce que mais euh, Pape Makoura boo amee suuf tey constitution moo la ne da nga am sañ-sañu am kër wala am tool boo mën a bay dund ci dundal ci sa njaboot ba boo ko gën a mën a yaatal sax dundal ci ñeneen ak ñeneen on parle aujourd'hui de sénégalais yu am suuf am na ay européens ak ñeneen yoo xam ne dañ njëkkati suuf jox leen ci yaa ma neex xamul tax corruption ci biir et je reviens sur un cas boo xam président wala ku ko ku ko jege ku ko dégg naka saytu également li tax ma ne ña ko wër na leen xool na saytu ku ci nekk la nga am ndax anam ba nga ko amee baax na ndax la nga am ci yoon nga ko jaarale ak ñaata nga am parce que am na ñoo xamee ne ñu ngi taxaw naa non président fii baaxul alors que boo xoolee seen ginnaaw ñu ngi nangemee hectares yoo xamee ne béyuñu fa benn mboq teguñu ko fa. li tax ma dellu si ci la bâtisseur di Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ne moom la ñu màggalam la tey parce que c'est un exemple à suivre ndax dafa ñëw fekkul dara mais ñu jox ko mais jëlu ko moom le ko boppam da ko jël seddale ko ci na mu ko war a séddale plus de cent vingt mille lotissement la def Touba ca ba mu ñëw. ay ay nu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def na ko biir Touba tout simplement parce que on lui a remis du foncier mu hérité ci foncier boobu mais jëlu ko def ko moomeelam jël ko def ko lu ko neex comme ceux qui étaient là et qui pris le foncier xam nga booy jël tey l'histoire du ay Prodac combien de domaines agricoles communautaires lañu waroon jox ay nit ñu mën see tedd mooy lan jox leen suuf pour ñu mën a bay mën see def yeneen ak yeneen ñu ne la ñaari dakk lañu fi defar mi milliards nañ ci kii moo tax am na yoo xamee ni euh, que la le président ait la main lourde et ferme sur ce qu'on appelle des prédateurs foncier parce que tey man mii bëgg naa suuf bu ma dëkk waaye boo ko lijjantiwul wala nga xam kenn ku nekk ci nguur doo ko am te pourtant il te suffit de fair une demande yóbbu ko fa nga ko war a yóbbu ñu saytu ne ni fii am na poche bu ñu mën a joxe ci domaine national la bokk ñu ne la jox na la ci cent cinquante mètres carrés ba deux cent mètres carrés waaye bu dee man maa mën a am jafe-jafe am deux cent mètres carrés kay am nangami hectare ba pare toog non c'est c'est c'est hyper hyper hyper grave à mon avis hyper grave te sa lii bu ko bu ko continuer jusqu'au bout mais dina régler benn problème déjà mooy l'histoire muy problème mu location baisse du prix du du coût du loyer tey su ma amee suuf am possibilité tabax ko mais naa génn kër gu may loué kii am kii am keneen ak keneen am mais location bi dina xaw wàññeeku ci ñu bari yow mi yore sa kër di propriétaire sax mais di nga mujj doon sax chef d'entreprise parce que di jël sa kër ga peut-être yokk ko deuxième troisième étage yow sa bopp mi nekkoon locataire ngay far di louer ay nit ñoo xam ne peut-être seen loxo jotagul seen ginnaaw yaa ngi créer plus-value donc vraiment qu'il ay jusqu'au bout et surtout qu'il ait la main lourde arrêté na lu bari et il a dit hier et je pense que c'est important nit ñu xam ko dafa ne dama arrêté le temps que ñuy saytu ku am na nga ko amee parce que am na ñoo xamee ni euh, wax na ko dañuy bëgg rapidement daw pour ñu joxal leen bàyyi wala titre foncier parce que xam nañ ni ñu am boo xasee ba am bàyyi wala titre foncier sur le plan légal day jafe ñeneen nit ki indi suuf si mais mennum état moom mën réguler ce ce ce problème et on aura finalement ou enfin une solution parce que le président l'ancien président Macky Sall disait sur 30 dossiers yu ñu di vingt cinq yi foncier la peut-être que bëgguñu woon lijjanti lool mais nii nii nii ah aywa en tout cas bravo au chef de l'État ak li mu def euh, na dem feneen am na yeneen i bërëb yoo xamee ni bu fa tegee tànkam dina yéemu de. d'accord. continuer mu bàyyi monsieur Mbaye